di len wax jafé jafé yi nga xamé mo ñu indi fi muy problème bo xamné ni ñun ñëpp defe naa euh daf ñu yittel parce que dafa am ben place bo xamné mu ngi nekk fi ci sali Ñax-Ñaxal di ben débarquement bo xamné ni mu ngi ci Ñax-Ñaxal pour gal euh gis nañ euh mbir la bo xamné daf ñu soxal té il faut ñu wax si li tax ñu ci wax moy amatuñu fuñu terre kon donc bu ñu amee place bo xamné fa lañuy terre

ak euh, descos bi nga xam moom moo fi nekk pour ñu jàpp si mbir mi pour ba nga xam ne ñun dañ am fu ñuy teer ak sunu gaal yi di aj sunu gaal yi bari na mbir yoo xam ne ñu ngi ko fi war a souligner fii donc il faut gars yi jàpp ci te ñu ngi si xaar ñooñu ñëpp. ñuy jël sunu plage bi defe naa ne euh, wax nañ la si bi ñu defee euh, terrain bi ñuy demee di xool tefes bi gis nañ ne littoral bi dafa bari ay problème si Sénégal ku ne xam ne fépp la ñu koy jooy fi mu toll nii mais rawatina sali ñax-ñaxal bii xam ne moom la ñu nekk. parce que dangay gis ñoo xam ne dañuy am seen kër am yem am limite mais dañuy bëgg a dem 20 mètres si kanam yoo xam ne day koy jël di ko occuper jëm si booru géej te ku na xam géej gi bien vrai que ne dafa xat ba gis nga travaux yi fi am mais teewul nit ñi ñoo ko gën a xatal parce que dañuy jël seen kër di ko avancer mu jëm géej donc ñooñu am nañ problème ak ñoom littoral bi gis nga ku ne yow gis nga yow ànd nañ léegi nga gis ko donc kon loolu si lu ñu war a wax la te xaar nañ si autorité yi ñu jàppale ñu si. problème boobu am nañu ko. waaw ENDA bi ñu euh, bi ñu ñëwee ñëw si ñun wax ak ñun parce que ñoom ñoo accompagner projet bi fi ne tey euh, bi bi ñuy ñëwee si ñun waxtaanee ak ñun ne dee ñu war a recaser jële ñu teeru bële indil ñu beneen teeru aménagé ñu ko mais gis nañ ñu loolu lépp defuñu si dara ñun ñu toog continuer fi ñu nekk dem nañ ba fi mu toll nii fi ñu nekk dañ fa parce que ñoom commencé ne seen liggéey.

amul benn mool boo xam ne yëkkati ne dara fi mu toll ay dig rek lay ñu def boobu léegi ñu ngi ñëw déglu na diña xaar mais lu ñu si mën a def nañ xam ne mool yi si dëkk bi lañ bokk si sali bokk espace bi gaal yëpp xaju ña fi ku ne xam na ne gaal yële bu ñu ñëwee fii du xaj gis nga yi ñuy jot a dugal si euh, terrain bi nga xam moo ne si ginnaaw fii sax pour mën a may yeneen gaal yi espace pour ñu dugg amuñu foo xam ne nii moom la ñu am pour ñu mën a nekk pour l'instant parce que ak mbaar yi fi nekk yëpp tey tere ñoo mën a dugal suñu gaal ba si biir donc kon loolu lu ñu jooytu la di ko jooytu euh, di ka jooytu ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi pour ñu mën ña aménager foo xam ne dañ fa mën a nekk am fa quai de di fa débarqué wu di fa di fa def li nga xam mooy sunu liggéey ñoom waxuñu ne dañ am autorisation parce que ñun bi ñu jogee dañu dem sab ko bi ñu demee sab ko SAPCO ko dama gis ne sax daf ñu xaw a négliger parce que li tax mu négliger ñu mooy daf ñu waroon a accueillir wax ak ñun mais accueillir ñu daf ñu ebal direct bii ma demee maa ngi fu fekk certaine njóogu lee ma booleel ma woo ko téléphone mu ne ma non lool problème boobu bu amee euh, chef da dem nga def descos ñoom ñoo yor mbiru suuf si mais ñun bi ñu demee descos descos wax nañu lu leer pourquoi sab ko bàyyi leen ngeen ñëw te ñoom ñoo yor aménagement donc ñoom ñoo leen waroon accompagner ngeen ñëw mbiru suufu Saly mënuñu ko wax sans sab ko donc sab ko am na si wàlla SAPCO am na si wàlla moo tax bi ñu jógee direct dem ci mom biñu fi jógee Descos dem nañu maire yi ak maire bi donc maire bi aussi di sunu kilifa yor dëkk bi donc ñu ngi koy ñaan mom tamit mu xam ne njabootam am na ay jafé jafé ñu nek parce que fuñu ñu ak sunu gal sa problème la ñu ngi di ser sunu gal yi newet lañu nek day toj té kenn ñu dédommagé bu pour man Descos mu ngi def liggéeyam parce que ñun liñ fa jotta a ci mom gis nañ ne Descos mu ngi def liggéeyam mais SAPCO mi nga xam mo yor aménagement Petite Côte dama gis ne deful liggéeyam dafa am foo xam ne dafa ko teg dafa teg askan wi parce que bu defoon liggéeyam débordement yi di am yëpp du am kon du am maire yi aussi war na accompagner population ba nga xam ne du ñu am jafe-jafe yooyu te yaakaar naa ne mair bi du ñu seetaan parce que dem nañu waxtaan ak moom am na lu mu mbébét pour dox si pas yooyu si mbir mi nga xam ne moom moo am nii. wax nañu ne mu ngi si mu ngi si te gis na loolu lépp mu ngi si te gis na loolu lépp te dina si dox mais nag ñun bëgg nañu gis loolu mu xam ne moom la wax mu taxaw si. jàppale ñu si ba ñu am ñun li ñu bëgg bu dara amul bii c'est une première boo xam ne def nañ ko point de presse dañuy oo askan wi ñëpp ña ñëw ñu wàcc si mbedd mi ñaxtu ko ba président yëkk mbaa euh, ñeneen kilifa yu mag yi nga xam ne ñoo ne si réew mi yëkk rek la ñuy def su kilifa su kilifa moo ne woon délégué de quartier fii si Saly Ñaxal muy El Hadj Mamadou Pouy yàlla def na mu génn àdduna mais doomam moo fi ne tey jii Fi mom moko joxe won jamono yim ko joxe ñim ko joxon c'est ben xarit bu doonoon commandant bato di Pape Ablaye Gueye mom mo nga xamé mom mo indi ñooñu ña jox ña suuf si si francs ñooñu def seen mur def lepp bi ñu demee ba ci bir ñu gis ne amna problème problème bi mu am moy ya ben femme bo xamé mu ngi fi bu ñu nday Fatou Touré def na sax vidéo tudda ci ay nit wax ci sax suma mag ne jaay souf ci te fekk kooku sax yëgul parce que bàyyi na ba mu gaañu muy door wax loolu ne moom moo ko jaay suuf si si ni ka waa Sale amee la ko amee woon boo xoolee vidéo bi mu ngi si beneen euh, nit ku ñanaan Saliou di alliance gulit indi ay kayit jaay mais li mu jaay xam na ne moomul parce que fii domaine maritime la domaine maritime la amul baay ay kayitu euh, communauté la indi ut ay euh, kayitam am ñu ne si ginnaaw si li ñuy wax ne ay kilifa ñoo ne si ginaaw mais kilifa yooyu ne sedd na askan wi si biir dëkk bi lañ dëkk si biir Sénégal lañ bokk waruñu jël suuf si di ko lege kenn nit mu di ko jaay di ko def si puus poosam kooku yaakaar naa ne faute mënu ko weesu donc kon ñun dañu taaw dem ne tey bu ñu bàyyi kenn di caxat caxatee sunu littoral bi di si def nu la ne di avancer. litige bi nga xam ne moom nga may wax bëgg nañu tey nguur gi ak kilifa yi fi ne wax xamal ñun ñu xamal ne ñun dañoo bëgg fii ñu bàyyil ñu ko defal ñu ko un débarquement boo xam ne quai de pêche ou marché de poisson boo xam ne ma war na fi mën a am loolu moo ñu tax ñu ne du ñu bàyyi kenn di ko jaay di def poosam malgré que nekk na litige mu ngi des kos loolu daal moo ñu tax a jóg. C'est ce qui fait tax place illégalement Nous jóg bu fekkee kilifa yi ñu def nous seen liggéey ni mu des descos parce que gis nañ pas yi mu nous def dem nañ wax ñu ñu wax gis nañu des euh, mu